teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabbi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa yaradi ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabbi. mënoo maa jaxase ak sénégalais yi dama lay duma daan la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août xam ne ba si góor a bay a ah, mbokk yi jameekee moo woote ànd ak jam production le 14 août fils de Balla ak Gora Sock waaye jameekee yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak jokkeel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi jameekee nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu la 14 août arène nationale fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic jërë ngeen jëf mbokk internet di jàkkaarloo ak ñun ci Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare yaakaar naa ne sax seetaan ngeen vidéo bi nga xamante ne ci la makkan doon wax combat Forza ak Franc taxaw na for Franc ñëw fii nga xamante ne moom mooy ITV pour signer li nga xamante ne moom mooy contrat bi digganteem war ko def octobre dans 2 mois Franc dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyoog yëpp ndax yaakaar naa ne tey ñi lay bëggee yëgaguñ ne combat bi taxaw na wala waxagoo leen ko occasion la nga jaar ci Lutte TV pour wax leen ne. sa combat ki nga xamante ne moom mooy Forza taxaw na. waaw avant tout Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar xam nga di sant yàlla bu baax a baax di ñaanal sama pap fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm di ñaanal suma yaay yàlla ba ko fi mu fekkee sama njëriñ xam nga di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp di nuyu sama mbokku njaago yi di nuyu sama mbokku séeréer yi xam nga di nuyu aussi tam ñi nga xam ñëpp ñu ngi may jàppale di nuyu sama am di jàmb ak surtout ki ma àndal muy Moustapha Tafsiko business ak suma ménagère as maa ngi nuyu aussi tam sama dëkkandoo yëpp sama waa koñ ñoom ñëpp maa leen nuyu waa koñu Ndiago sama gars yi daal 1 26 su ma limee damay juum Cambérène déggoo ñëpp maa ngi nuyu ñëpp quoi. comme ni ma ko waxee rek sanq dem nañ fële nga xamante ne moom mooy Kër Gaston mu ñu wax ni sa combat ak Forza taxaw na yaakaar naa ni confirmé nga ko parce que ñëw nga fii pour pour pour signer li nga xamante ne moom moo di contrat bi est que mën nga wax lan moo tax. nga def sa choix ci Forza parce que gis nañu yeneen adversaire nga doon nga doon laaj lan moo tax nga mujjee jël Forza. waaw instant bi Lamine dañoo ñëw fii dañoo ñëw fii fu mu toll nii tënk nañ ci kàddu ba pare dañoo ñëw fii pour signer comprendre nga pour xaati mu leer waaw maanaam rëdd quoi. waaw pour lépp leer. waaw man xale laa damaa toll ci bëre bu ma toogee bëre woon man maay perte parce que te aussi tamit soutien de famille la. mais aussi tamit dama toog wax waxtaan sama staff ba pare ñu jox ma ndigal dama combat jël ko waaye ma leen am problème. ñaata adversaire lañ la tegaloon ba nga tànn ci for. waaw adversaire yi moo tegaloon moom bëri na quoi xam nga daanaka trois la woon rek mais dem nañu démarche def ñu def démarche bii moo ci mujj sotti alhamdulilah daal. sa plan B est-ce que sa sa plan A est-ce que Forza la woon. non nekkul woon moom quoi. waaye mais comme lii moo fi ño lii moo mujjee taxaw. dañ si sante yàlla xam nga ñu xam ne ñun aussi tamit ay xale lañ dañoo toll ci bëre aussi tamit bañ duggee ci làmb bu ñu fàtte yàggul Forza moo jiitu ci làmb bu ñëwee bay bëre moom loolu ab sant la waaye. bu xoolee sa palmarès def nga onze combats onze victoire Forza yaakaar naa ci ay onze combats la toll wala dix combats nga jël ko mais yaakaar naa ne ci côté dayoo ci côté xeex ah, Euh, ci peut-être doole sax mën nañ ko bañ a wax mais adversaire yi nga xamante ne Forza jot na koo bëreel est-ce que mesuré nga Forza bu baax a baax xam ban genre adversaire la par rapport ak yow. waaw Forza daanaan la champion la Forza kenn mënul wax làmb di ko ci génnee comprendre nga comme boobu dañ koy jox cër bépp boo xam ne yelloon na ko xam nga ñu ñëw gérer suñu combat def ci la fayda yàlla ba yàlla may du ñu may ndam quoi. ci bëre ndax miin nga Forza bu baax a baax. waaw toog naa sama kër boobu mooy gën a doon tu tànk sax di ko seetaan muy bëre muy bëre ay làmb yoo xam ne dafa am coow waaw ma ñëw ba di bëre ak moom comme boobu dama koy jox cër bu mu yelloo rek. Mhm. adversaire yi nga mujj am yëpp gis nañ ni ci ci ci côté wax doon nga leen dominer. parce que am na gëm-gëm boo xamante ne doon nga ko dégager am nga yëg-yëg boo xamante ne doon nga ko yëg bay waxee noonu ndax sa diggante ak Forza mën nañ gis même franc bi ci communication ci préparation ci ci mu dëggal boppam dox ci kaw adversaire am est-ce que mën nañ gisaat même franc bi. waaw ah, man daal Lamine maa ngi nii man ni ma doon ñëwee laay ñëwee du ma ci changer dara parce que gars yi nañu équipe buy gagné kenn du ko changer noonu daal laay ñëwee bu jëree mu tàng dina tàng bu jëree mu non amul luy sedd moom xam naa amul luy sedd moom. diggante Forza moom xam naa ne du sedd moom parce que da ngaa nekk prouvé mbër boo xam ne prouvé nga ci mbapat yi moom tamit ba mu ciy toll mu prouvé ci mbapat yi nga nekk champion du Sénégal mu nekk champion du Sénégal jo jot nga nekk champion d'Afrique mu nekk champion d'Afrique yaakaar naa ni kon vrai adversaire combat combat test li ñu naan combat test est-ce que gëm nga ni combat bi combat test la ci Franc. waaw ça dépend rek xam nga yéen moom yéen yéen ñu gën a xam làmb sax ñun ñu ñu bëri non at non dama ñu gën a xam làmb ñun ñu ñu bëri comprendre nga yéen noo leen ko tuddee rek anyway am problème mais man daal lu ci ëpp solo wala lu ci am solo man daal dinaa dem waaj ak samay mbokk dinaa dem préparer bu baax a baax ñëw fas yéene jàmmarloo Forza yàlla may ma dem ci kawam. tuddee ko combat test wala examen. non non man tuddee ma ko yooyu man dama jàpp dama war a bëre damay concentré wu te dama war a bëre Forza damay concentré ci moom ba keroog yàlla di ma may ndam waaye. ndax adversaire bu dangereux la ndax jàpp nga ko yow adversaire bu dangereux comme ni ko amateur jàppee adversaire bu dangereux. champion la na lépp Forza ku ko xamul dégg na ko la day bëre day xeex day kàjji lépp lay def comprendre nga mais lépp lay def comprendre nga mais dinañ ko jox lépp lu moom dinañ ko jox wàccuwaayam mais bu arbitre dañuy jël lu ñu moom dem suñu yoon. nan moom sa digganteeg Forza. li ma moom bëri na moom bëri na bëri na Lamine. xeex ak moom wala manipuler ko jaay ko doole wala. lépp lépp lu ci war rek dañ ko def. leeral ñu rek Forza euh, man kay dama bëgg tey affaire bi yëngu parce que dans deux mois moom yéen ñaar ngi war a seen diggante da ngay manipuler ngay xeex da nga koy jaay doole. chaque jour la su ma nee yoon bi laay jaar yoon boobu laay jaar chaque jour ma wax la ko. Ah, boo xaar ko foofu rek. Franc manipuler Forza jaay ko jaay ko ni xale dama koy manipuler de waaw moom mooy xool moom lu mu bëgg rek mais dama koy manipuler de. xeex wala ci bëre. ci lépp kay bëre dóor la dañoo fay pour ñu bëre dóor wala lool du bëre simple de waaw bu ñu. est-ce que Forza yomb naa manipuler. waaw ba bés ba rek yàlla nañu fi yàlla defal jàmm waaw ñëpp yàlla defal ñu jàmm xam nga ba bés ba rek incha allah. pagala la mujjee daan de te yaakaar naa ne bi muy daan pagala la a doon préparé préparé ndoo combat doon naa leen fekk olympique yéen ñaar ndax pagala fi ko Forza jaaroon def nga ci ay étude bi ñu démarré si combat bi def nga ay étude ci combat yi nga xamante ne Forza daf koy bëree day mbot day jolal day xeex waaw te yombul song waaw comme déggoo nee naa la Forza la moom bàyyi woo dara forsa ku xamul Forza dégg nga ko champion mu doon ñëpp dégg nañ ko te mu ngi booy sa noppi mais léegi lu ci des yu ñëw concentration xam nga ànd ñu ñu war a àndal ñëpp wax par suñu dëkkandoo yi ñaanal ñu suñu mbokk yi ñaanal ñu jàppale ñu ndam am incha allah. bëgg naa ci yow lan nga wax waa ak waa jàmbaar. waaw aussi di leen di wax waa parcelle xam nga bi daal taxaw na ngeen def ci ñaan xam ne affaire bi seen yëf la parce que ñun amuñu dara lu dul parcelle ñun fu ñu mënti dem parcelle la ñuy représente xam ma la ñuy taxawal fépp fu ñu mun munti dem comme mbokk muy mag muy ndaw paa yi maire yi suñu jarbaat yi ba suñu raq yi yéen ñëpp ngeen jàpp di leen wax combat bi seen combat la tamit di wax sama monsieur le maire muy Moussa Sy maa ngi koy wax combat bi mu jàpp ci bu baax Amadou Ba ministre Amadou Ba aussi tamit mu jàpp ci bu baax a baax Seydou Ba grand Seydou Ba grand Babacar Gueye aussi tamit duñ ko fàtte gis nañu ñu ñu ciy jàppee ak ku ci mel ni suma président écurie muy Mame Père Ba vraiment moom tamit sonn na ci bu baax a baax boobu ba léegi mu naan Franc defal nii waa doxalee ni yooyu noonu xam nga du nuyu tam suma ménagère as aussi tamit du nuyu Mansour Ba du nuyu ñi xam ne daal ñu ngi may jàppale yëpp sama waa koña ah aw ma seen fay benn yoon aussi tamit ku ci mel ni Edouard dim la jox ñoom dadi xam nga gaa yi gaa yi si jàpp yëpp waa ñi ciy jàpp ñëpp xam nga maa ngi woo ñëpp ñu ñëw def comme ni ñu doon def rek incha allah. France ngay dem ci kër wala Belgique. France waaw fois France dañ ma xaar sama tooma bu nekk. mu mënoo cee dem France deux mois. ah mais lu bu ci xajee rek lamin amul problème ak Lamine bu ci xajee rek ñu def ko parce que tamit aussi dañoo am staff dañuy wax defal ni ñu def nii ñu nuyu aussi tamit suma grand borom Belgique ah xalifa Seri Maam Kumba waaye maa ngi jël vol léegi ñëw ci guddi gi <laughs> jaajëf. e teg leen teg leen teg leen teg leen mbax na mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabbi mbax na mi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbax na bi yóbbu mbaxana mi te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar la 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxase ak sénégalais yi lay la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la moom muy forcé nii mais le 14 août xam ne ba si góor a koy bay. mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak Jam Production la 14 août. Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu. kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel. mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee. yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4,99 euros ngeen ko mën a seetaanee. waa Sénégal 2000 francs dong. kon mbokk yi bés baa ngi noonu la 14 août. arène nationale Fils de Balla ak Gora Sock Jam Production ak sponsor leader bi tuuti chic.